mbokku jullitu mbokki taalibe bi salaamaaleykum mbokku auditeurs yi nga xam si ñooy teewlu jamono bi seen rajo Baol Média FM di lu ci naam maanaam moo di internet bi ci 3w baolmedia point com wala 3w Baol Média info wala nga dem ci youtube bi def Baol Média 24 ñu ngi fi xam si maanaam moo di daaray kaamil di bis bi nga xamante ne si ci la ñuy màggal màggalu Touba tombante ak euh, le 16 octobre ci bis bi nga xamante ne si ci la ñuy fàttaliku kam maanaam moo di Serigne Touba Cheikh Amadou ñu nekk fi maanaam moo di daaray kaamil fas yéene fee xam dañ ko fas yéene def waaye ñu ànd ci ngi lay nuyu. Ah, jërëjëf ku ñu ngi lay fay di la dalal jàmm fii ci maktabatu Cheikh Khadim di daaray kaamil di leen ñaanal ñëw gi ngeen ñëw sant bu baax a baax ci ñëw gi ngeen ñëw fii ngir yaatal jërëjëf sëñ Fallou Ndiaye bu ñu bëggoon xam daaray kaamil fan la nekkee ci Touba fan nga ñuy wax. waaw jërëjëf ci laaj bam solo bu nga laaj mu mel ni bu ñu bëggoon wax daaray kaamil mi ngi nekk ci euh, penku jumaa yi ndax euh, boo xoolee ni mu bindoo euh, dafa dafa takkaloo ak fi nga xam ne fi lañ julloo it ñaan ko ñoo ñoo ñoo ñoo takkaloo kon daaray kaamil mi ngi nekk ci penku Touba diggante armeel yi ak jumaa ji foofu la daaray kaamil nekk. mi ngi fekk ci penku Touba diggante armée li ak li maanaam moo di jumaay Touba foofee la nekk dend ak li maanaam béru moo di béréb julleekaay bi sëñ Fallou suñu bëggoon xam maanaam jamono bi fi nga xamante ne si maanaam euh, fi la daara ji toll jamono bii ndax dafa mel ni ki kat buñ ko xoolee nekk na réyukaay dayowaay boo xam si kawe na trop maanaam kenn si maanaam moo ko tabax ci doomi sëñ Touba mën nañ ko waa waaw jërëjëf euh, ku baax ci laaj bi nga laaj ndax euh, dayob daara kaam moom ku na xam Euh, day gën di jëm kanam saa su ne ndax ku ne xam na ne li fi nekk euh, ay xam-xam la ndax ñu bëri dañuy jàpp ne bu ñu daaray kaamil rek ay kaamil fa nekk waaye déedéet daaray kaamil boo ko déggee euh, dañ koo tënk ci ay ay ay ay ay ay tomb yu bari ndax dama bañ a anticiper ci laaj boobu noonu waaye daara ji sëñ Abdou moo ko fi def ci atum 1977 sëñ Abdou Lahad troisième xalifa général des Mourides moo ko fi def ci atum 1977 bi mu ko fi def tamit sàkkutoon ñu bu bu laaxoo ñu denc ko fi waaye taw tawfeex suñu borom moo dëppale ginnaaw moom moo def daara yàlla dimbalee ko ñu denc ko waaye bi ñu ko fi def jàppul ne moom fi lañ koy denc mm. kon daara yi nga suñu Abdou moo ko fi def ci atum 1977 ci la fi def ci la ko inauguré. ci mi atum 1977 ci la ko inauguré mu nekk daara joo xam si yaakaar naa maqaama yi fi nekk bari na lool su doyoon sëkk ni kaamil foofu la baaxee waaye nag saa su nekk ñu naan doomi sëñ Touba jooju du Cheikh Abdoulaye Lahat maanaam nekk fekk koo xam si foofu la tëdd maanaam tey màkkaan bi suñ ko doon seet ñaata bâtiment la doon ah jërëjëf ci laaj bu am solo boobu nga laaj mu mel ni bi nag buñ ko waxee euh, euh, nga xam ne fi la alxuraan yi mm-hmm. ay façon am na yoo xam ne sëriñ Sëriñ Tuubaa yi ñoo ko bind bu mel ne sëriñ Moustapha moom sëriñ Saliou bind na ci sëriñ Modou Habib moom sëriñ Abdoulaye Borom Dal bind na ci sëriñ Abdoulaye Sohaybu waa Gédé bu sëy bind nañ ci waa Njaxate bind nañ ci sëriñ Mor bind nañ ci waa Dara Salam bind nañ ci am na ci bi téere naar yoo xam dañ ko jëlee bitim réew indi ko fii kon la boobu mooy salle numéro une boo jëlee ñaareelu salle bi mooy salle numéro deux bi nga xam nag boobu moom foofu la nekk mm. mooy di xasida yi ngay dégg ak diwaan yi yëpp mm. foofu la nekk Masaalikul Jinaan yeeg yuñ traduit en français ak yëpp mm. sëñ Tuubaa moo ko bind moo nekk moo ak yenn témoignage yi nga xam ne sëñ bi ko jëlee Gabon dañ ko yóbbuwaat une déportation en Mauritanie bi def ay témoignage moom xam ne kii li muy woote dëgg la ci moom lu wér ci moom lu te yàlla yàlla dong woote naar yi mujj def ay témoignage moom mooy salle numéro salle numéro 2 bi boo jëlee salle numéro bi mm. mooy fi nga xam ne fi leen tënk wàllu xam-xam mm. ndax ko waxee rek ñu bëri jàpp ne daara ji ay fi nekk waaye déedéet mm. daara ji li fi nekk raw mu nay kaamil am na fi ba def fi sëkk waaye leneen xam-xam mi ngi fi mu mel ne masal fi ma taxaw sama ginnaaw rek ay téere xam-xam yu am solo moo fi nekk yu ci fànn gi yëpp boo jëlee grammaire am na fi boo jëlee euh, médecine am na fi boo jëlee agriculture am na fi boo jëlee histoire des prophètes na fi boo jëlee philosophie am na fi boo jëlee économie islamique am na fi kon daara ji daal d'une manière ramassée daara la boo xam ne bibliothèque boo ne bibliothèque internationale la boo xam ne ñëpp ku fi ñëw da nga mën gis sa bu dee ne mooy nekk muy salle numéro 4 muy salle de nga xam ne ko fay def uniquement ngir jàppandal ñi nga xam ne ñoo nekk ci gëstu wala étudiants yeeg wala élèves yeeg wala chercheurs yeeg wala képp koo xam ne xam-xam na la boo ñëwee fii da nga fay am lu lu kawe sa ndax fii liñ fi laaj kenn dara amul fay amul dagg tikki amul dara gratuite la boo ñëwee da ngay toog bu ñu lay identifié boo amee carte wala passeport wala permis de conduire wala carte étudiant boo ko defee bu la neexee toog ba heure bu la neexee nga lii amul du yóbbu téere nag bu la neexee nga photo machine yi nga gis tàkkee bu la neexee nga rox sa clé jël li nga soxla yóbbu waaye daal ak jàpp ndal la daal ci jullit ñëpp ak jàpp ndal ci àdduna bi yëpp daal de manière générale ak jàppandal la ci àddina ak jàppandal la ci murit yi comme ni nga xam se noonu koy wala ak jàppandal la sax ci xam se maanaam moo di bépp jullit boo xamante ne sax yaa laa ilaaha si maanaam moo di daaray kaamil wala moo moo defar li moo di daaray kaamil ca suñu borom def tey mu tëdd foofu xam naa kan mooy Seex Abdou Lahad moom dina jafe lool xam waaye bonu doon wax ci sëñ Abdou Lahad ban yan kàddu nga nu ciy wax ah, jërëjëf ku baax ah, sëñ dafa eh, naqaree wax suñu wàll dafa yomb wax mm-hmm. ndax day doomi Sëñ Tuubaa yoo xam ne li fi liggéey ku ne xam na ko eh, daanaka dañuy wax ne mooy jàmbaaru Sëñ Tuubaa ci kaw suuf ndax ñëpp a jàmbaar lañ waaye jaayante gi mu jaayante ak Sëñ Tuubaa jaayante gi mu jaayante ak lislaam jaayante gi mu ak suñu borom moo war a lii taxaw ndax eh, ci suñu jamono ci li ñu dégg Euh, bi nga ko fi tabax di kër gu baax sax ci saayir amu ko mm-hmm. waaye bi nga ko fi def ñëpp ñu ngi ko daan yi nga xam ne euh, seen gis-gis dafa gàtt mm-hmm. ñu am mm-hmm. lu nga dëkk sax nangam faye muy si daal du jàmbaar xam ne nii sëpp maasa nangu nañ ko ak bëgg Sëñ Tuubaa adduna sëpp maasa nañ ko ak fonk sëriñ bi adduna sëpp maasa nañ ko ak liggéeyal Sëñ Tuubaa ba fi jógee ba ñu ko noppee gis ndax Sëñ Abdou Lahad du fi jógee ndax ne ndax saa boo ñëwee fi rek sa xel dem Sëñ Abdou Lahad kon Sëñ Abdou Lahad moom daanaka dafa dafa yomb a wax ndax mooy lépp Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou Lahad mooy lépp Sëñ Tuubaa moo defal lépp université bi sax daanaka aw tur luñu ko ndax université Baye Laal fa nekkoon waaye gis na dim université boobu ci dëkk bi waaw mu nekk lu am solo sëñ Abdou Lahad dafa amoon yéen ci dëkk bi yaakaar naa bu ñu xoolee sëñ Mountakha sax ak sëñ Abdou Lahad bu ñu leen doon méngale mhm. ay jamono mhm. dañu naan kat ñoom ñaar dañoo bokk li nga xam si mhm. maanaam moo di xel yi ci xelu ni liggéey ndax yaakaar naa kenn ku nekk ñoom naa dafay yëngu ci wàllu xam-xam ak jubbanti ak jubal yaakaar naa tey ñoom ñaar boo leen xoolee ci li xam si maanaam dina nekk wàllu organisation daara ji nu muy demee waaw wàllu organisation daara ji euh, daara ji dafa am ku ko jiite di responsable moral bi muy sëñ Moustapha Diadara moom la fi sëriñ Sall tegoon Ah, bu sëñ Saliou jugee ah, sëñ Abdou Khader bi mu ñëwee da ko fee bàyyi sëñ Abdou Khader bi mu ñëwee de de sëñ Saliou bi mu ñëwee da ko fee da ko da ko da moo ko hmm. ñëwee. daal ko fi bàyyi suñ sëñ Moustapha kon daara ji moo ko jiite hmm. am na nag benn comité pilotage boo xam ne nii mooy saytu wàllu wàllu conférence yi am ci koor geek hmm. wàllu conférence yi am ci safar daal am na benn comité pilotage boo xam ne ñoo ko jiite am na ay francisants am na ay arabisants daal mooy nekk li nga xam ne mooy organisation daara ji moo nekk wàllu organisation daara ji xam naa suñu waxtu lee mu jeex mhm. sëñ Fallou xam naa kon kàddu yi dénkaane rek ndax nag du ndikk ba mhm. lu mel ni daaray kaamil ci wax dëgg yàlla jëlewuñ fi ay dénkaan yoo xamante si askan doon ci mën a jariñoo loolu doon dénk lan nga ñuy wax wallaay ndeysaan jërëjëf macha allah ndax ku ne xam na ne euh, daaray kaamil buñ ko waxee rek euh, ñu bari comme la ma njëkkoon wax sa début ba dañu jàpp na ay kaamil la fi nekk

alhamdulilah mooy ki nga xam la ngaa jublu sa borom nag da ngaa fa a xam ñu ñëw ak fu waay mën a nekk rek boo yittewoo daara ji condition yi méttiwut ñi koy di fexee de numériser de telle sorte da daal ñi sant ñëpp euh, ñi fi jaar ñëpp ñu leen sant leen sant télé yeeg site yeeg ñëpp ñu leen sant ci yaatal ndax lii ñun ngeen ko defal kon leen di ñaanal baax a baax ngeen yokk yéen tamit ba yëg ko ci barkeb Cheikhul Khadim borom màggal gi di la ñaanal bu déwénee ñu dajawaat fi incha allah rabbi ñun ñëpp ñu yokk ci baax a baax ci kàddu yi euh, am luy contribuer ci tabax Tuubaa man dana dana ay nit ndax euh, xam-xam ku ne xam ne ne mooy mooy àdduna doomu aadama bi nga xam ne jàngul daanaka dañ koy yóbbaale rek waaye eh, ñu fi ñëw di gëstu xam-xam ëllëg si biir seen xam-xam boobu mën nañ ko yokk ci développement Touba kon jàpp naa daara kaamil moom mooy nekk facteur principal bi nga xam ne mooy xam na xam moom eh, kon ku ne moom mooy lépp kon daara kaamil nekk na la jàpp nañ ne buñ ko buñ ko buñ ko gënee ci dëkk bi jàpp a jàppandi ñu ngi jégalu bu baax baax nag. xam naa waxtaan ñu ngi ko àndoon nag Waalo Digital. <laughs> Ah, Waalo Digital ñu leen di sant baax waa Waalo Digital ak Baol Média ñu leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal baax si fi ngeen bëgg seen liggéey bi egg fa mu egg fa ci barke Seexul Xadiim. merci beaucoup